دافع البلايا والنقم والصلاة والسلام على نبيه الأكرم ورسوله المقدم نبينا محمد وآله وصحبه خير القرون وأفضل الأمم أيها المؤمنون الخطبة توجيهات إسلامية فيما يجب tujaaha niami l ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi bind xéewal yi di ko wàcceel ay jaamam waaye mooy ki am yërmande fegal ay jaamam ay balaa ak i musiba ñu ngi sant yàlla ci ay xéewalam di ko bàkk ci ay melokaanam yu mat ak ay turam yu kawe di ñaan salaatu ak salaam yal na ko yàlla saxal ci ki gën ci ñi yàlla yónni di roy waayu jaam ñi di kiy jëkk a wax ak boroomam ëllëg yowmal qiyaam bu tiis ya tare moom la yàlla cërale mooy kiy jëkkaramu moom la yàlla cërale mooy kiy jëkk a dugg aljanna ak xeetam yal nañu ko yàlla feyal lu gën lu mu fey ab yonent ci xeetam sunu xutba tey mbokk jullit ñi muy aju ci xéewalu yàlla ci ay jaamam bari gu xéewal yooyu bari ak tegaloo gi ñu tegaloo di wàcc ci jaam ñi ak lan moo war jaam ñi nag ak lan moo war a doon taxawaayu jaam ñi ci xéewalu yàlla yu bari yooyu mbokk jullit ñi xéewal yi ñu yàlla defal bari na wuute na tegaloo na lool sunu kaw xéewalu amal ñu sàkk ñu xéewalu def nu ay nit te mënoon ñoo def yeneen bindeef yu dul doomu aadama xéewalu lislaam xéewalu yàlla defal ñu ay cër ci ay bët yu ñuy xoole fu ñuy jaar ak ay nopp yu ñuy dégloo li nit ñiy wax ak ay làmmeñ ak gémmiñ yi ñuy waxe sunuy kàddu nit ñi di ko dégg xéewalu xel mi nga xam ne moo wuutale nit ak bàyyi ma waaye xéewalu wér nga xëy dara mettiwu la sa cër yépp bu ci nekk di joxe li mu war a joxe di dox li mu war a dox waaye xéewalu xam-xam bi doomu aadama di leerale xelam di ci liggéeye ay mbir di ci fente ay mbir di ci découvrir ay mbir yoo xam ne yombal na dund nit ñi ci oto yeeg avion yeeg bato yeeg yu doy waar yi xel di liggéey te muy njariñu doomu aadama xéewalu ay métier yoo xam ne dinañ ci yombale sunu dund waaye xéewalu euh, jàmm jootala jaamoo yàlla jootala nekke ak sa njaboot xéewalu alal xéewalu soxna ak i doom xéewalu ay kër yu ñuy dëkk ak ay néeg yu ñuy fatu ci jamonoy sedd jamonoy tàngoor néeg yooyu nekk sunu sutura xéewalu ay yére yu ñuy sol ak a summi bu tàngee nga sol yére yi tàngoor bu seddee nga sol yére yi euh, sedd boo nekkee sa kër sol yére yooyu féexloo ci biir kër gi wuuteeg bàyyi ma bi nga xam ne benn der la am benn couleur boobu la am bu tàngee moo ak deram bu seddee moo ngi ngeeg deram xéewalu ay xeeti lekk ak ay xeeti naan yu yàlla defal doomu aadama xéewalu ay cëru diine yu yàlla defal ñenn ci ñun ak ay cëru àdduna yu yàlla defal ñenn ci ñun ñi nekk ay sëriñ ñi nekk ay buur ñi nekk ay e, fonctionnaire yu mag yàlla defal ñu xiiwal yooyu yëpp ci tënk dañuy wax li yàlla wax rekk mooy wa in tauddu nicmatallahi laatu tuxsuuha su ngeen daje woon yéen ñëpp di lim xéewalu yàlla yi ci yenn nee na dangeen di lim ba seen dund jeex waaye du ngeen mos takk du ngeen mos a àgg ci xam ñaata xéewal la leen yàlla defal xéewal yi bari lool tegaloo lool te benn jaayu ci yàlla jaayul benn xéewal ci xéewal yi mu ñu defal xam nga sa benn bët bii rekk bu la ko yàlla doon jaay amul njëgam sa xol li muy liggéey sa xel sa xel sa xel mi nekk ci biir amoo njëgam soo amoon njëgam it amul fu xel di jaaye ñu war ko faa dem jëndi ko fa génnee bi màgget walla bi mënatula liggéey dugal bu bees amul yàlla jaayul xéewal yi xéewal yooyu yàlla wutalu ko ay facture yoo xam ne danaan am nga at di xoole say bët am nga at di doxe say tànk am nga at boo lekkee yàlla reesalal la la nga lekk am nga at di dem wanag wa ci nu mu la gën a yombe kon nag facture at maa ngi fay ko xéewalu yàlla yi amul loolu bu amoon ay facture kan moo koy fay oxygène yàlla bii mu tasaare foo xëcc dugal génne xëccaat dugal bu doon jaay nombre nooy yi ngay nooyi ci bés bi fan ngay jële crédit boo feye loolu kon jaayul moom xéewalu yàlla yi waaye leblewul yàlla defalul kenn lu mu koy defal pour ëllëg di yaakaar nga fay ko ndax soxlawul daray jaam ñi bari na lu la nit di defal fekk na am na lu muy xaar ci cëppaandaw la nga defal ko ko yow nga fay ko ko xéewalu yàlla yi amul loolu xéewalu yàlla yi euh, du lu yàllay faye kenn bor nga defaloon ko dara mu nekkat kat yow defal nga ko dara ji nga ko teraa nga xaaral mu fay la déedéet xéewalu yàlla yi mbaaxam la ak ngëneelam bu muy wàccee ci jaam ñi wutu ci dara kenn forcé wu ko ci xaarul sax nga ñaan ko parce que yàlla bu doon xaar nga ñaan ko pour mu defal la kon du la sàkk ndax existé woo ba naan yàlla def ma yàlla bu doon xaar nga ñaan ko pour mu def la ngay doom aadama kon du la def doom aadama beneen mbindeef la lay def ndax fi yàlla doon classé mbindeef yi ñii di doon ay nit ñii di doon leneen kenn nekku fa woon bay sàkku ci yàlla lan nga war a doon kon xéewal yi ay ngëneelam rek la wutu ci dara fayu ci bor leblewu ko jaayu ko utalu ko ay facture tax na ba am na ay orientation yu lislaam joxe ci xéewalu yàlla yooyu nga xam ne nii ma wax noonu la deme ay mbir yu mënta ñàkk la ci sa dund ñaanoo ko yàlla yàlla defal la ko xaaru ci ci yow dara imagineel boo amul woon ay bët te toujours yàlla war la misaal ci ñi mu yàlla ñi ko yàlla xañ imagineel yow miy dox di tànk ak say tànk di tëbal su la yàlla xañoon say tànk imagineel boo rombee ku nekk ci poubelle ya dafa lekk di fanaan ci mbedd mi ci ngelaw li ndax yàlla jël na xelam boo amul woon xel moomu koy doon pour nga xam xéewalu yàlla yi xéewal yooyu nag laa wax ne am na ay jàngale yu ci lislaam jàngale daam a jàngale yooyu bu ko doom aadama dundeek xéewalu yàlla yi euh, lu ko yàlla joxoon de ko koy yokkal bu doom aadama jëfe jàngale lislaam ci xéewalu yàlla yàlla da koy barkeelal xéewal ya mu ko defal bu doom aadama jëfe li ko yàlla sant ci xéewal yi kon ay xéewalam yépp ay tuyaaba la ciy am muy ñaari bénéfice bu nit jëfee li ko yàlla sant ci ay xéewalam dina ko muccal ci dem ba yàgg xéewal yi la yàlla joxoon yàlla jéppi la nanguwaat ko bu doomu aadama jëfee li ko yàlla digal ci xéewal yi dana ko may ñaanu doomu aadama yi bu yàlla bu doomu aadama jëfee li ko yàlla sant ci xéewal yi dana ko muccal ci ayu ñu ko koy soxore waaye bu doom aadama jëfee li ko yàlla sant ci xéewal yi mu ko defal dina am lay ëllëg bu ko yàlla ne xéewal yi ma la defaloon ci àdduna loo ci def dana ca am lay ndax amul lu yàllay joxe fii ci àdduna ci ay xéewal lu dul dina la ko laaj ëllëg yowmal qiyaam yàlla nee na summa la tusalunna yowma izin anin naim wér gi ma la jafoon doole ji jeunesse bi alal ji euh, barke bi euh, nguur gi fonction bi lekk geeg naan gi yàlla nee na lu ci nekk danaa taxawal doom aadama laaj ko loolu lan nga ci def ak loo ci defal yàlla kon jëfe li la yàlla sant ci xéewal yi mu la defal dana yombal ëllëg su la yàlla taxawee di la isaab di la laaj dana yombal sa isaab yombal looy tontu borom bi loolu war ci xéewalu yàlla yi li ci jëkk mooy nga nangu ne yàlla ko la ko defal te nga askanale ko yàlla bañ koo askanale sa bopp bañ koo askanale benn doomu aadama yàlla nee na hal min xaaliqin gayrullahi yarzuqukum min alsamaai wal ard ndax am na kenn ku fi nekk koo xam ne moo jàppale yàlla ci sàkk leen ak amal leen waaye kenn ku fi koo xam ne mooy jàppale yàlla ci wàccee ay xéewal ci jaam ñi yàlla nee na man rek maa bind man rek maay xéewale kon xéewal yi nañ koy askanale yàlla te bañ koo askanale sunu bopp bañ koo askanale beneen mbindéef ne moo ñu ko jox bàyyi fi yàlla ñaareelu waru gar bi mooy xéewal yooyu na rëy ci ñun te buñ ko xeeb li la yàllay defal ci ay xéewal na rëy ci say bët te bul ko xeeb xam ne mënoo ko woon a ñàkk yàlla neen yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dee leen xool ci ñi ngeen tane nee na loolu moo leen di dimbali ci ngeen bañ a xeeb li leen yàlla defal waaye bu ngeen xoolee ci ñi leen féete kaw kon laa li leen yàlla defal di ngeen ko xeeb ñett ñetteel bi mbokk yi mooy sant yàlla ci xéewal yooyu te bañ koo sakk nu xéewal ga toll rek na na làmmiñ ba yëngatoo cër yi yëngatoo noonu ci sant yàlla ci xéewal bi yàlla nee na la in shakartum la azidannakum wala inkafartum kafartum inna adabi la shadid su ngeen ma santee ci yi ma leen defal nee na ma yokkal leen ci samay xéewal waaye su ngeen sakkee nag samay xéewal euh, gisuleen ko yëgalu leen ko seen yaram wala ngeen xeeb ko yàlla nee na samay duma yu metti mu ngi leen di xaar bu dul ci àdduna nekk ci àllaaxira juróomeel bi mooy xéewal yooyu ñu di ko fàttaliku fu ñu toll te bañ koo fàtte bul fàtte xéewalu yàlla ngir ni mu sax ak yow yàlla dinay defal nit xéewal xéewal ga yàgg ba dootu ko yëgal yaramam bul fàtte xéewalu yàlla ngir ne am nga leneen loo soxla te yàlla joxu la ko tax nga fàtte mu la jot a defal loolu du ngor sa diggante digganteeg sa borom amal looy yóotu amal looy bëgg waaye sant ko nag ci li mu la jot a defal cant googu moo lay yombalal jot la ngay yóotu bul fàtte xéewalu yàlla ci yow ngir benn natt bu mu la teg doomu aadama day nekk ci xéewalu yàlla fukki at yàlla xëy teg ko benn feebar wala benn natt wala benn tolof tolof mu mel ni yàlla mosu koo defal dara kon del teewlu xéewalu yàlla yi ci biir nattu teewlul xéewalu yàlla yi xéewal gi yàgg na ak yow tax nga fàtte di sant yàlla ci xéewal googu ñun nag li ñuy dal ci xéewalu yàlla yi bala ngaa xam na mu toll ñaar rekk yàlla nattu la ci yóbbu ko kii xool ci ay bëtam fukki at du néew na lu muy teewlu xéewalu bët yooyu waaye bu xëyoon bëtam yooyu am sikk rekk mu soog a xam nag bëtam yooyu la mu ko daan jariñ mbokk jullit ñi nañu yëg li ñu yàlla defal ci ay xéewal te di ko ci sant allahuma ma razaqtana min an niam faj'alha awnan lana ala taatik ya arhamar rahimin alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbi wa man ittabaahu wala mbokk jullit ñi bokk na li ñu war ci xéewalu yàlla yi moo ñu def ko moyen pour jaamoo ko yàlla dara gënu la ñaaw dara gënu la ñaaw dara gënu doon ak ngoree sa digganteeg yàlla yàlla defal la xiiwal nga nay ko cee jaamu yow jeune bi temps bi nga yéene terrain bi ak entraînement bi ak ékibu koñ bi yéene woo ko diine yàlla ji ci jàkk ji suñu xoolee sa dund yépp li àdduna jël ci sa doole muccaat ko ci sa diine amul xaaju xaajaat bi te moo ne ki may jàmm ji nga tale àdduna may la doole ji la àdduna soxlaa kooku yaakaar naa ne bu diine amoon ngor am mooy gën a yey ci sa doole jooju ak ci sa xel moomu ak ci sa temps boobu ngoree gi ñuy wax ci diggante nit ak nit ñaare ci diggante yàlla ak nit lay jëkke ñun ñu goree di lañ suñu diggante ak suñu borom li mu ñu jox ci ay xéewal au ñu def ko ci lu neex yàlla dimbandikoo ko ci lu neex yàlla waaye dañ koy def moye pour moyen ko yàlla baat bu neex bi la yàlla jox jàngaloo ko ci alxuraan danga dem di ci misikal seytaane di ci réeral jaam ñi alal ji la yàlla jox pare daraja bi la yàlla jox ak martaba bi la yàlla jox yow kilifa diine ji woote woo ci jëme ci diine yàlla ci sa bopp ngay woote yow buuru àdduna bi yàlla bàyyi fi ñépp jox la ak nguur nga di ko noggatoo jaam ñi di leen ci tooñe nguur gi doon ci yow defukaayu lu ma neex xam nga ne gore woo xam-xam bi noonu alal ji noonu léppi àdduna noonu mooy la war a doon pour sant ci yàlla mi la ko jox ak jaamoo ko ci waaye waroo koo utiliser di ko moyee yàlla benn boroom xam-xam bu mag dafa wax ne ma an'ama allahu ala abdin bi nicmatin fastazhara biha ala maasih illa btalaahu llahu bi faqdiha amul kenn ku yàllay jox xéewal nga dimbandikoo ko ci lu naqari yàlla nga def ko moye ci tooñ yàlla lu dul yàlla dina nangu xéewalam boobu jox ko koo xam ne bu ko ko joxee du ko ci moy juróom-ñaareelu warugar bi mooy ñu modest ak xiiwal yooyu bañ koo def lu ñuy bewloo lu ñuy tiitaroo lu ñuy rëyloo ak lu ñuy xeebe jaam ñi joxoo ko sa bopp yàlla moo la ko jox ñi ma ko xañ dug yaafus du dara yow mi ma ko jox dug merit dalaa tànn jox la ko kon bu ci xeeb nit ñi bu ko rëyloo seen kaw bu mu la bewloo bu ko def tiitarookaay xéewalu yàlla yi ci ñun mbokk yi bokk na ci li ñuy war ci xéewal yooyu mooy ñu def ko lu ñuy defe lu baax ci nit ñi mooye la pour jaamu yàlla ak bañ yàlla mais mooye la pour def lu baax ci nit ñi del laaj saa yoo xëyee ba ngoon lan laa defal doomu aadama yi ci li ma yàlla jox lii la yàlla jox jaayu la ko lebalu la ko dala koo may xéewale la ko ahsin kama ahsana allahu ilayk wa ahsin kama ahsana allahu ni la yàlla cërale defal la teraanga ji nee na loolu fay ko yàlla ci ay jaamam xéewal bu la yàlla defal te amoo lenn loo ci jëriñ jaam yi defoo ci la nga ca war a def ñenn ñi nag ci ñun contraire ba la ñuy def xéewal bi ñu war a dimbalee jaam ñi dañ leen ciy lor di leen ci xas di ci tiitaroo seen kaw di leen ko xeebe nas allah salaamata wal aafiya bokk na ci li war ci xéewalu yàlla yi mooy lu ñu ci yàlla jox ñu yéene jaam ñi lu ni mel di la yàlla yi jox ci ay xéewal yéeneel jaam ñi kenn ku nekk am lu lu gën sax li nga am yéene boobu du wàññi ci li la yàlla jox dara ndax yàlla li mu am du jeex te ñépp xej nañ ci yéene boobu nga yéene yaa ngi ciy am tuyaaba yaa ngi mel ni ku defal nit ñi teraanga yooyu ngir ni ngi leen ko yéene bokk na ci nitee di ak doyadi ak weddi xéewalu yàlla mooy mu jox la xéewal boo xam ne sa yéene yépp sa mébét yépp mooy lii kenn dootul am lu ni mel man rek maa koy am boutique bi wax loolu jàngalekat bi wax loolu keneen ak keneen wax loolu kenn ku nekk di monopoliser li la yàlla jox di ko xañ jaam ñi yow foo toll yaa ngi sakk ay bunt di xeex ay nit di gasal ay nit ay pax pour lii kenn bañ koo am ku dul yow ñi la jiitu yow bu ñu defoon ni nga def est-ce que di ci jot mbokk jullit ñi ñu ngi daaneel di wax ne bàyyi xel ci li la yàlla defal ci ay xéewal dina jural jullit mu bëgg yàlla bàyyi xel ci li yàlla def ci ay xéewal dina lay dugalal kersa sa digganteeg yàlla bàyyi xel ci li la yàlla defal ci ay xéewal dina la pousser ci defal yàlla li mu bëgg topp ko waaye bàyyi xel ci xéewal yi la yàllay defal dina lay dinay dox sa digganteeg mooy yàlla soo ko fàttalikoo bàyyi xel ci xéewal yi la yàlla defal dinay tax nga muñ ay nattoom su la yàlla tegee nattu tey nga ne dëgg-dëgg yàlla lii benn nattu la ci biir million wi xéewal yoo ma jox kon benn nattu bii du tax ma salit ba fàtte xéewal yi nga ma defal bàyyi xel ci xéewalu yàlla yi dinay tax nga yërëm jaam ñi dinay tax nga rafetal ci jaam ñi allahuma inna naudu bika min zawali nicmatik wa taxawuli caafiyatik wa fujaati niqmatik wa jamii saxatik ya arxama arrahimin qumu ila salaati yarxamkum allah